ngeen à euh, siiw moom franchement loolu moom. mënu Adama am na Adama Fall sax am na livreur boppam. Ah, mais Birama loolu ko compter dafa métti war wax ci moom de Adama war nañu mu ngi ci lépp gis nga gis nga gis nga si Samaria. Hmm. liggéey bi bu ne la ñu si waxuñu loo xamante ne am na. yéen a ngi ciy génn bu baax. waaw ah, ñu ngi ciy génn yàlla ñu ciy suturaal. Hmm. parce que nit loolu leen nekk ren ba déwén boo ko gëmee suñu borom ñëw ñu ngi ciy génn mais nañ dimbali xam ne mënatul ñàkk xam nga mënutu fi ñàkk voilà lu mënutul ñàkk mënutul ñàkk père mais nañ ko régulariser bu ko defee mairie bi soit mairie lay nekk mu ci am dara ku nekk gox ba nga dëkk nga bindu ji fa ñu jox la ko nga mairie bi di ci am dara <laughs> wala état bi di ci am dara ñun foofu rek. mais yow yow lan mooy sa proposition mairie bi wala wala man su ma sañoon mu nekk mun na nekk sama gox ba ma dëkk ku nekk gox ba nga dëkk maanaam tey HLM ñu jëlee ko 1 ba 6 ñëpp. bind jiyee mairie ba voilà ñu yor association bi foofu ñu dajale ñëpp ñu dem bind mairie ba ñu joxee ñu ko suñu mairie ki dëkk Derkale defee ko mairie Derkale ki dëkk Sicap defee ko comme noonu ku nekk sa mairie bi nga dëkk nga defee ko pour mairie bi mën a am sax benn mm-hmm. ressource boo xam te ne mais ci état bi lay jógee décret bi mu wàcc man loolu rek laay demandé ko waaw comme mu nekk lu lu lu lu ñu régulariser. mais aussi que mais su nekkul profession ça va être difficile il faut ñu reconnaître leen comme. comme uh-huh, moom loolu lay wax ne waaw wax nag ñu reconnaître comme comme comme comme comme comme def ko métier tey père booy ñu ngi dem di mbëkk ci gaal gi hmm. nest ñu ngi dem di dugg di dem ci gaal gi di dem. kii mu ngi dem uti beneen yoon pour dem amee kii mi ngi uti beneen yoon mais ñun ñu ngi gëm suñu bopp toog ci réew bi gëm ni war nañu fi mun a ma am dara. ndax tamit sama gëm-gëm bi ma am mooy man mi Alaaji Mbay liggéey naa ba am 600000 man du ko dem di ko fay benn gaal de damay toog laaj café de waaw waaw ko dem di ko jox kenn nga may dugal ci ay ban pour may dem kii man benn laa mos benn tubaab fii dem naan damay nappi donc <laughs> mu dugal ma ci gaal gi ñu dem ba gisatuma ay géej ma commencé di wàcc mu naa ah ma noonu dina baax nañ dem ma ne ko soo ma yóbbul fi laay dee dem rek dina bàyyi man eh, man yóbbu ma dama ñibbi waaw delloo ma sama kër man xaw ma lii mu teel ma wàccee ma ñibbi depuis lor ba tey laan damay toog laaj café du ma am sama 600000 su ma ko yoree père ma dem jëli sama benn jakarta sax wala ma def. dëgg la waaw. dëgg la jaay ko ba am ko. non tellement maa ngi seer na léegi de ay temps kay 200000 sax 250000 sax jëlee naa ko scooter man depuis 2000 ba tey maa ngi daw scooter. ok yàlla 2000 ba tey maa ngi koy daw. am nga kii doon kii GIE. pour formaliser li nga wax rek GIE la waroon yor.